mais li ñu gis fii mooy dañuy gis rek bu ay élection di waaj ak ay ay ay ay ay seen politique yooyu ñu ñëw indi seen ay camion seen ay picolin def seen ay kii raser def seen i kii bale dem ba tout récemment bërki dem rek gis ngeen ni ñu changé peinture bi tey yëpp ñun mënal nañ ko suñu bopp ñun li ñu bëgg rek mooy nañu wax ak sénégal yi leer wax président de la république li nekk ci terrain bi wan ne leen projet Sandaga doxatul te mësul dox te ñi ñu ko jox liggéey yu loolu pour ñu delloosiwaat Sandaga lii nag dafa ñaaw trop ndax boo xoolee ñi fi nekk tey gis nga ñi ñu dëkk bi gis nga insécurité bi mu indi te fii nañu mooy xolu Ndakaaru te suñ ko dee wax tey jii fii mooy Sénégal en ñaat ñëpp a ko bokk ñun dañ fi nekk rek di fi jaay daan suñu doole yàlla dogal nu féete fi waaye ñun ak sénégalais yëpp ñoo ko bokk kenn ku ne bépp sénégalais am nga droit tey nga ñëw tàllal sa loxo nga taxaw kaas ci ne Sandaga nañ ko delloo nu gën na mu meloon. ñun loolu rek la ñuy demandé laajuñu leen bëgguñu ko nu dimbali bëgguñu ko nu may bëgguñu dara suñuy droit la ñuy laaj mooy nañu defaraat Sandaga joxaat ko ak acteurs yi fi nekkoon jàmm rek am ndax ñii fi nekk nii gis nga xoolal fii xale yi bi ngeen di dugg. ku ne jéem nga sa benn table teg sa jiit xale yi chaque jour dañu leen di ramasse chaque jour ñu dëkk ci te ñun tamit ñu doon di góor mënuñu nekk ak ñoom te ñu gisoon li leen fi seen i seen maam bàyyi lool muy respect bu ma sëkk tey ñoom ñu yëpp di leen toroxal loolu mënuñ ci dëkk jot na nag jot na nag président de la république encore une fois mu jël ay dogalam ci Sandaga wax bi jeex ndax bu ñu demee bay dégg tey ñaari meer muy bu Dakar ak bu Dakar Plateau kenn ku ne di génn di wax ci président mu mel ni léegi ñoom ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa war a toog ci taabul di waxtaan wala bon exemple mënuñu toog sax wax mais ku réew mi fu mu jëm ñun amuñu problème mu plateau maire plateau amuñu problème mu maire commune defar amuñu président de la defar ñun li ñu bëgg mooy ku ñëw ànd ak askan bi defaraat sànn ko joxaat ko ak yi. mais ñun ku defar baax na yéene nañu ko maire plateau yéene nañu ko maire Dakar yéene nañu ko bépp Sénégalais bu ko man mais rek li ñu wax rek mooy tong-tong bi doy na. sonn nañu mënatul na xaar lii nag comme ni ko ñëpp waxee nag dañoo jiite ay gor ñu am lu ñu doon wax lu nekkoon ca lool waaye léegi nag yëf yi soppeeku na waaw. yeneen na yeneen jëf yi nag la ñuy def comme tout le ndax dañoo am i kilifa na demal ci ñu yem loolu ci ca lañ nekk ba pare. incha allah ci kattanu yàlla bu màggal bi paase jàmm danañu delluwaat ci kilifa yi ndax am na lu ñu waxoon a kilifa yi. ndax ñoom dañu ne woon dañu leen fiy jëlee indiwaat leen biñ toogee kilifa dañu ne ku ñuy defaral nanga nga muñ waaye defar nag dafa amul te li ñu waxoon kilifa yi comme defuñu ko ñun tamit danañ demaat ba ci ñoom ne leen kat ñii kat la ngeen leen waxoon defuñu ko lii lañ fi def image lañ yóbbaale yëpp ñëpp gis ko ndax nag naxaate bi dafa booy dem di dem di dem ba li ngay def di ko tappalee ak ak def sa yeneen yoo xam ne méngoowul ak lu nit ku baax war a def ba dem sax di ko dugal fenn fi loolu dafa nekk loo xam ne lu ñaaw la lu metti la lii nuy dund nag yàgg na trop te dépense xaarul kenn fere xale xaarul kenn ñun ñëpp dañu yor suñuy doom war leen di jox dépense ñu war a dem di jàngi te kenn mënatu ko fii kenn mënatu ko fii kon nag ñoo ngi lancé appel encore une fois vous les journalistes ngeen gën ñu jàppale te bu leen kenn waxati benn wax boo xam ne mën ngeen ko bu dul ne waa Sandaga ñoom ñoo leen ko wax parce nag sànn gi dafa bëri tey yi ñu ci génn di dox yoo xamante ne nii récupération rek la ñuy def ak politicien bu amul programme ay yore mouvement xamoo foo jëm kenn topp la mais benn doomu aadama bu ñemee taxaw fii ci sànn ga woo nit ñi wala nga taxawal fi presse di wax ci sànn ga dara budul ñi amul kenn ñi ku leen di wax sànn ga tey neel na ko kaay dem rond-point ba woote fa wax kenn du la ko defal bu ñu jaxase nag liggéey liggéeykat yi ak caaxaankat yi ñun ay liggéeykat lañu laaj laaj ñu état dara muy sunu outil de travail lañ ko laaj mooy fi ñu nekkoon nañ fi dellu si ko ak sénégalais loolu rek lañ laaj laaj bi leen. ñoo ngi di sant ñëpp gërëm ñëpp ñu euh, ndaxte li ñuy dund. waaw yow léegi nag. métti na métti boo xam ne dama naan fi taxaw suñu xol dafa tooy ndax fii lañ lekk suñu pour gërëmatal. waaw waaw dama dund dund gor. ñu def lu nekk nag li ji bi wax sànq ne dañ joxe asaka. ku dem ba léegi tey soxla 5000 francs xam nga ni yaa ngi ci coono coono bi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk di ko dund képp ku nekk Sandaga boo xaree dënnam mën na laa wax li Sandaga bi waa Sandaga di ñoo bokk métti bi nga xam ne ñoo ngi koy dund fee ñu ñu yóbbu muy Sanda course du këru gor fu gor di dundee sonn nañu tàyyi nañu te waxuñoo kenn nag man bu ñuy wax maire yi man waxuma ak maire yi président la waxal ndax président Macky Sall moo dalaloon suñu xel ne marché bi maa koy defar ci loxo bopp ñu suñu xel dal ñu ñëw ak mbégte nelaw nelaw yu neex waaye tey nelaw yooyu ay jooy lañu soppi nelaw yan doon nelaw mbégte ma ñu amoon ay jooy lañ ko soppi ndax yaakaar ju tas la ndax suñu yaakaar dafa tas ndax président lam ñu waxoon suñu xel suñu xel dal tey suñu yaakaar mooy yàkkeeku tey lu waay mënoon di ko defal ci sa njaboot tey sa kër tas na xam nañ ci ñu bari ñoo xamante ne ñoom ñoom ñoo doon dund tey yal na leen yàlla yërëm génn nañ àdduna te métit ak coono moo leen ko teg kon nag lii ñuy dund te président teg ci bëtam te ne woon ba ngeen fi bañ fa jógee balaa weer am weer dinaa dajewaat ak yéen te loolu yëpp dara amu ci gisuñu ko ñuy ñaan président de la république na gestu askanam na gestu njabootam waa Sandaga sonn nañu waa Sandaga ñu ngi dund métti bu méttee méttee méttee méttee métti ñuy dund ci nguuru Macky sàll gi dama naan kenn dund ko fi ñun waa Sandaga li ñuy dund kenn masu koo dund ci Sénégal gii ci nguuru Macky Sall gi kon nag président ñoo ngi lay ñaan ñun dañoo la faloon waaye coono bi ñuy dund fi mu ne nii boo ko yëgulee ñoo ngi dund loo xamante nii wallaay azim nit ñu dee di dox lañu nit ñu dee di dox lañu lu ñu mënoon mën a tuj ko luñ doon def defatuñu ko kon nag li ñuy ñaan mooy nañ ñu tabaxalaatal suñu marché bi delloo ñu ci ñu dund dund bañ doon dund sonn nañu tàyyi nañu te amuñu lu dul Sandaga xamuñu lu dul Sandaga te liggéey rek lañu xam jërë ngeen jëf baal ñu nga tur bi ak sant bi man Assi Ndiaye laa tudd maay présidente femme yu ma. maay présidente ok